jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu fàttali leen ba ñu ngi dalal ba léegi kii di euh, Ousmane Fall di coordonnateur Gueule Tapée Fass Colobane la ñu dalal tey di waxtaan ak moom ci actualité nationale u Sénégal euh, ñi ngi dégg sa biir kàddu sànq yaa ngi wax lu jëm si mbirum euh, nomination bi yees bi nga xamante ne jiitum réew bi def na ko ci kii nga xamante ne muy Mamadou Badio Camara booba léegi nag gis nañ ay publication ñu koy def tamit ci réseaux sociaux yi di yëkkati ay kàddu di wax ne Macky Sall dafay préparer lu jëm ci mbirum troisième mandat ban jàngat nga ci am. Euh, merci pour question boobu moom Mbaye euh, en fait ñun ba tey suñu jàngat mooy Macky Sall ba tey position bu nga xam ne bu nekkoon depuis le début lu muy teg acte muy posé depuis Sénégal bu ba léegi mooy maanaam son projet de troisième candidature bu nga xam ne que ñun xam nañ ne Macky na ko leer ni miti mënul présenté wu en 2024 il ne peut pas être candidat en 2024 léegi nag bu buggee taal réew mi il n'a qu'à se présenter mais lu may wax mooy toutes les personnes encore en je répète toutes les personnes ñi nga xam ne que dañuy impliqué wu di jéem a jàppale Macky Sall ci troisième candidature am boobu lépp lu ci war mun am lépp lu ci nar am laa wax na parce que bu nee day nekk candidat dëkk bi day métti il y aura certainement des morts il y aura des blessés il y aura il y aura beaucoup de dégâts collatéraux ji nga ñooñu noonu ñu ko accompagner laa wax ñooñu noonu ces personne la ñu koy ne mun nga def wala ñu koy nar a ñu ko nar a mooy conseil constitutionnel toutes ces personnes là vont payer. toutes ces personnes là kon kon yéen da ngeen gis ne. bés bu ñu jëlee nguur gi laa wax. bés bu ñu mhm. jëlee nguur gi laa wax. Mhm. ces personnes là. vont réparer tout ça. Mhm. Ousmane Fall kon yéen da ngeen gis ne Badio Camara li ko tax a toog tey foofu Macky Sall tax ko mooy valider candidature Macky Sall. valider la troisième la troisième. lan moo koy firndeel ban firnde ngeen si am mais xam nañu ko mais ñu loolu loolu jaaxaluñu fii ñëpp xam nañu baajo Camara mooy kan jaar jaaram yooyu noonu yëpp cest ñun on respecte on on reste c'est pas la euh, l'ensemble des des euh, l'ensemble du personnel de la justice man xam naa ñu bëri. on a beaucoup de respect envers nos magistrats mais malheureusement il y a certains parmi eux ñi nga xam ne que seen seen seen seen seen doxalin mooy maanaam faire le sale boulot moo leen fi tax a jóg fii Sénégal dëkk jàmm la fii Sénégal dëkk jàmm la léegi nag bu dee ñoom pare nañu pour teg Sénégal fu nga xam ne que mooy euh, comment dire encore nan laa ko mën a waxee. mooy insécurité totale dans dans ce pays ma xam nañ ko ñoom ñoo koy def c'est Macky Sall moom ci boppam moo ne moo wër fépp ci àdduna bi dem fépp moo ne man bii dama ko verrouiller troisième candidat kenn dootu fi mën a def ñaari euh, plus de plus de deux mandats consécutifs consécutifs mënul lu nekk lii lu muy doyee lu mu lu lu muy doyee loolu consécutif mooy lan consécutif mooy la yu tegaloo nga ñëwaat da bugg a def ci say xam def ci say pexe et puis ñoom waa waa camp camp Benno nga xam ne que ñoom ñoo doon taxaw fii temps Abdoulaye Wade xool leen fii seen vaar yi man je pense que il y a euh, bàyyi ma daale ma il y a des gens yi nga xam ne u on amuñu famille amuñu doom amuñu mbokk amuñu nijaay amuñu bajen amuñu kenn ku leen di wax dëgg ne seen yéen ngir yàlla wax leen seen waa ji moo waxoon lii ak lii na ci dal mais mais ndax nekkul lu mu yoroon dossier kii di xalifa euh, Sall ak Karim Wade lu mu yoroon seen dossier doonoon juge bi est-ce que nekkul loolu taxit tamit ngeen xaw si am siki sàkk si position am. bëri na dina conseil conseil constitutionnel lu fa jaar moom ñun ñëpp xam nañ way mais élection yi passé firnde na firnde conseil constitutionnel moom lu fa jaar lu nekk mooy pour valider Macky Sall moo tax Ousmane Sonko ne moom bés bu nekkee président de la République. dafay jóge c'est-à-dire la priorité du président de la république est ailleurs que di topp justice bi di dóor Macky Sall bu ñu fàtte ne Macky moo ne am na ay dossiers yi nga xam ne man maa ko teg maa jël sama kuddu teg ci mais cette personne la cette personne la ci ban justice la nar a jaar bañ bañ koo valider lu mu bëgg mënul nekk yow sa bopp yow yaa ne lu mu bëgg lii man maa ko am na dossier yoo xam ne man maa ko ci teg. sénégal Ce qui veut dire Sénégal, Sénégal, on est dans un royaume. On na affaire à un roi qui est Sall. mais nag ñun duñ ko si seetaan ñun duñ ko si seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg. mais ndax ndax candidature kii di Karim Wade ak xalifa euh, Sall du mujj takk suuf ndaxte ñoom dafa mel ni Badio Camara moo yoroon seen dossier. parce que tam gis nañ ne bi nga xamante ne Macky Sall def na lii décret bi génn na Karim Wade ak ki nga xam ne muy xalifa Sall ñoo njëkk réagir des ci wax. rafetluwuñu ko naqarlu ko seen candidature ndax du mujj takk suuf ñoom ñaar. sànq nee naa la di nga gis assemblée taxawaay bu nga xam ne que bu ñu mosul gis depuis les indépendances gis nga yu ñuy wax nii yëpp am na leen nga am ne ci biir assemblée lay réglé bu soobee yàlla Macky Sall naa encore rien vu lan moo tax ma dégg ne gis naa benn information xamu na dëgg la wala dëgg mais dégg naa am tout cas gis naa ko ci journal yi benn seen presse yi bind ko en ligne. ne gars yi euh, jour kii bi élection jour élection le 12 waa Benno Bokk Yaakaar dañuy dañuy nekk en bus dañuy dugg ñoom ñëpp ci biis dem assemblée nationale <laughs> bu ma gisee information bi ay reetaan la ma def. kon ñoom dañoo ragal mbay ku ragalul yow ñu voté la sénégalais voté la nga ne am nga 82 députés looy dugg ci ay bus looy dajaloo ci ay mbooloo nga ne da ngay dem yow kay li nga war a def kay bàyyi kenn ku nekk sa kër bu dee en toute démocratie. bàyyi kenn ku ne sa kër mu dem ku jógee sa kër dem assemblée nationale dem ci installation bi ils ont peur en réalité dañoo ragal jubilé bu ñu doon jubilé ci élection bi passé dañoo ragal seen li ñuy jëf yëpp en réalité gëmuñu ko en en face de à la face du monde dañ bëgg wone ne que ñoom ils sont ils restent toujours debout ils sont toujours devant alors que ils sont à terre Macky Sall fini il n'a qu'à partir en paix man loolu laa ko ñaanal léegi nag euh, assemblée nationale taxawaay bu ñu nar a def ci Karim ak Khalifa sal bu soobee yàlla dañ fa taxaw taxaw bu ma sëkk bi li nga xam ne seen ak ak seen yelleef yi nga xam ne dafa dindi nañ ko ñu delloo leen ko que kenn ku nekk ci ñoom nu mun a participer élection en deux mille vingt quatre sénégalais bu sénégalais sénégalais yi jël seen décision bopp ni kii moom lañ bëgg mu jiite Sénégal mu jeex tàkk mën naa loolu laa gëm. ASID TV, la chaîne des patriotes.